jërëjëf euh, la régi macha allah dellusiwaat nañ ci la TMS TV euh, ak le xalif général di El Hadj Thierno Moule Sow ñu nekk ci Cambérène un terrain jamono en face plage bi ba léegi ñu ngi ci waar wi ànd ak euh, sëriñ bi ci liggéey bi macha allah ah ngeen seen le xalif général ñu ngi nii toog macha allah ak. Euh, ñi nga xam ni ñoo nekk ci biir bureau bi macha allah ñu fas yéene nag commenté leen euh, li nga xam ni mooy seen i tànk fii kon defe naa ni tongu ne du teew ñu nataal kon euh, li ñuy def mooy dañuy jox ku nekk kàddu laaj la lan moo fi sa tànk ci kër gi kon soxna si ñu ngi lay ziar bu baax a baax di lan mooy sa tànk fii ci kër gi. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. maa ngi nuyu sama sëriñ di ko ziyaar di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal jàmm gudd fan ak wér moom ak njabootam yëpp maa ngi koy ñaanal waa kër gi yëpp macha allah sama tànk na ci kër gi euh, cuuraay bi laa bëggoon jënd ak euh, benn photo. Mhm. fan nga ah, Tëngéej. waaw yaa damay ñëw fii. Mhm. Mhm. lan nga man euh, bi ma fi géejee. sama sëriñ daf ma mayoon benn t mais bi ma ko solee jour bi ma ko solee euh, dama gént bi ma géntee ay ay kii may may tufli toujours gént bi may tufli rek di di xarkandiku di tufli lu bëri sa expliqué naa ko sa alseeni deuxième jour bi ma ko solaatee euh, benn kii benn waay bu njool bu ñuul kukk sol yëre jigéen léegi bëgg a ñëw ci guddi gi pour ànd ak man mais après sama sëriñ dafa def baaraal sama diggante ak moom mu taxaw fii ci batu ci batu nag mooy ñuul kukk troisième jour bi tamit la même chose mais depuis boobu ba léegi géntatuma loolu en fait. <laughs> ñaata temps ma toggul un mois ma fi gëjee. kon kon macha allah. Mhm. Euh, ay macha allah macha mhm. Mhm. Eh, jërëjëf eh, ñu ne eh, nga bokk ci mule mule yi ñu miin la torop ci gaa gi est-ce que tey promo bi moo may occasion nga mën a jënd cuuraay bi mais wala yàgg nga utiliser produit non utiliser wu ma ko nag c'est hmm, fois ah. hmm, hmm. kon kàddu ngay wax ci li nga xamante ni moom mooy promotion bi ñu ubbi mu may la opportunité tey nga mën a utiliser li nga xamante ni mooy cuuraay bi macha allah mbégte rek ak kontaan ak xol bu sedd. Mhm, parce que mhm, nañ daw si ñëw. Ah. Mhm. <laughs> ñu profité ñëw de macha allah. lan nga gisee macha allah amuñu fayam dañ koy bàyyi yàlla suñu borom rek mu fay ko parce que suñu sëriñ géej la sooy wax ci moom doo doyal doo jeexal tamit billaay dañuy ànd ak mbégte rek ak kontante. di ko ñaanal mu yàgg fi lool yàlla may ko atu jinne yi mu yàgg fi lool ànd ak wér macha allah mhm, kenn du moom mhm, jërëjëf Seydi So macha allah. waaw dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu nga xam ni moom la euh, soxna si doon wax léegi macha allah ay témoignages yu am solo jëmale ko ci sëriñ bi lii nag defe naa ni euh, yàgg na ci kër gi ay témoignages yoo xam ni ci Sénégal ba bitim réew jëmale ci sëriñ bi muy ay. kéemtaan ay miracle yoo xam ni saa su ne rek euh, dina jóge ci sëriñ bi macha allah kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kon ant defe naa dañuy gën a avancé bu baax a baax soxna si ñu ngi lay nuyu di la di la ziar di la bàyyi nga présenté wu et puis nga wax ñu lan mooy tànk yi fii ci kër gi. maa bi man nag olof bi dafa leerul bu baax làkkat laa man sama rakk moo nekk euh, bitim réew mu gis image yi mu nekk nag moo sori am doomam bu feebar moo ma feebal man maa ngi tudd Madeleine maa ngi jóge benn baraak waaye moom mu ngi tudd Fatou Demba doom ji mu ngi tudd siidi déedéet mos ma fi ñëw moo ma feebal moo moo xam moo ko seetaan yabal ma fii fekk nee na joxe na audio ci sëriñ bi bi sëriñ bi won ko tegtal ko fu mu nekk léegi boobu la ma koy yónnee ma ne ko waaw côté bi moom miin naa ko ma ne ko pour dem bi foofu man dina yomb ci man waaw ndax benn baraak laay jël benn oto laay indi waaw ñëwoon naa fi démb pour ma laaj ma gën a renseigné woo ban côté la boobu laa fi ñëw ñu ne ma tey mooy tey lay liggéey waaw depuis ci fajar gardien bi sama ko fi jiitu. Mm-hmm. day faral euh, waaw waaw waaw waaw waaw waaw. man dañ ci wax tuuti ah, nee na ma dafa am ku ko seetaan fekk moom tamit jaaxale ci doomam bi am ku ko seetaan mu ne ko sëriñ sëriñ bi day liggéey liggéey boobu te moom tamit gis na koo xam ne da koo liggéeyal ba kooku. nekk naa mu ngi ci jàmmaam waaw mu ne ma kooku moo ko gën a kii encouragé ci sëriñ bi pour ma ñëwal ko fii loolu moo fi indi waaw man nag jotuma koo suivre waaye moom moo koy suivre carrément mu wax ma ko audio bi tamit maa ngi ko gardé ndax waaw mu ngi bitim réew waaw doom jàng tamit bitim réew mhm. waaw ñabal moom pour ma ñëw ci sëriñ bi fii ndax doomam bi doom ji daa ni xel bi daal day waaj a kii da day day tëju te nekk place moom kenn nii lay faral di def waaw. déedéet doom ji mu ngi foofu waaw doom ji mu ngi foofu. Hmm. alors kàddu bu mujj sëriñ bi. man kay ñaanal sëriñ bi rek lu ma ko dégg nii ndax man tey laa fii doog a ñëw waaye dégg naa ñi ñi di waxtaane ay mbiram maa ngi koy ñaanal. maa ngi koy ñaanal bu baax ak jabootam yëpp yàlla mun bi gën a yokk ndax wax dëgg yàlla mu ngi dimbale jaami yàlla yi waaw te tey tey man kay macha allah. <laughs> jërëjëf macha yi am na solo kon léegi yéen a ñu suivre sur la TMS TV sëñ bi euh, ñu ngi lay ziar di la nuyu di la bàyyi nga présenté nga wax ñu lan mooy maa ngi tudd uh, Mamadou Riba uh, maa ngi dëkk Grand Dakar waaw maa ngi dëkk Grand Dakar sama benn mën naa ne sama sama doom la parce que ki ma fi yabal uh, sama sama sama doomu grand frère la waaw moom nag nekk mu ngi bi bitim réew daaw da bala tudd parce que sax moom moo ma moom moo ma moom ma wax mbirum sëñ bi waaw moom France la nekk parce que moom maanaam boo fi ñëwee sax danga nga ko naan Daouda Ba te mu nekk Lyon yaa ngi parce que ñëw naa fi mardi mais boobu dañoo fi lañu nekkoon ba fajar sëriñ bi après waxoon day ñëw si si ëllëg si mais comme que dañoo waroon xëy dem liggéey moo taxoon ma demoon liggéey mujj moon mujjoon naa sax ñëw mais comme que dama gémmantoon jour boobu comme que dañoo kii mën a xaaral ma si laa gis eh, alseeni ma ne ko maa ngi dem ba samedi comme que sëñ bi day ñëw samedi samedi comme que du ma liggéey dimanche dinaa veillé xaar ko ba mu ñëw après ma gis ak moom waaw parce que moom moom fi yebal mu ne ma parce que da koy suivre moom tamit da kay suivre si chaîne ci chaîne kii euh, YouTube bi waaw ci MSTV parce que daf ma damay déggante ak moom si WhatsApp bi mu may wax si moom xam nga ma ne ma ah ma ne ma yaa ngi suivre sëñ mun la sëw man ne ko ma ne ko waaw ma ne ko naa ko gis naa ko gis si chaîne bi xam nga ma ne ko maa ngi koy gis nag ma ngi ma ngi def ay mbir xam nga waaw mu naa ma da ngay jéem xam nga boo amee temps sax nga dem nga dem foofu xam nga nga nga waxtaan ak moom yow tamit say mbir mu xoolal la yaa ngi ne ko amul problème dinaa dinaa jéem kii mais yàlla def nag moom mu yóbbante ma fii nag xam nga mu yóbbante ma fii soxla yaa ngi mu ne ma demal ma foofu xam nga boo demee wax ko rek daaw dema moom fi yóbbante moom dina xam te mu nekk Lyon France ma ne amul problème même sëñ bi sax woo naa ko wax naa ko expliquer ko après moom moo ma tettal fii sax après si laa fi ñëwee nag waaw sama waaw waaw sama sama waaw maa ngi door maa ñëw moom waaw maa ngi door a ñëw fii waaw dëgg la kemtaan yi moom macha allah parce que dama koy suivre moom parce que nit ki moom lu la yàlla jox rek dañuy nangul borom bi moo ko def si doomu aadama waaw wax dëgg yàlla moom mu ngi dimbali jaam yi ah. man moom loolu laay wax man moom même tey sax ba muy ñëw sax am na sama benn collègue de travail sax maa ko koy wax xam nga ma ne ah man ko def si benn kilifa laay laay dem Cambérène mu ne ma kàlla ma wax ko tur bi ma ne ko est-ce que yaa ngi koy suivre xam nga mu ne ma non suivre ma ko ma ne ko ah, man ko jar naa dem seeti de parce que ma yenn saa yi dinaa ko xool si YouTube bi mais lu muy def moom macha allah mu ngi dimbali jaay bi bu baax a baax waaw kàdd gu mujj bi moom mooy sëñ bi daal ñu ngi koy ñaan yàlla gudd fan ak wér waaw di ko ñaanal tamit njaboot bi yëpp ñu ñu fi nekk ñëpp dinañ ko ñaanal parce que moom mu ngi def loo xamante ne wax dëgg yàlla moom bu ñëpp doon def ni moom wax dëgg yàlla moom mbir yi dina mën a sotti bu baax a baax parce que sëriñ yi bëri nañu si Sénégal mais am na si ñoo xamante ne moom yàlla li yàlla xam doy na waaw mais daal di di ko ñaanal yàlla wér ak wérle waaw li muy def tamit yàlla gën ko si may kattan bu baax a baax muy gën di wéy macha allah. jërëjëf euh, macha allah kàddu yooyu am na solo jëm ci euh, jëmm ji toog muy le xalif général di le roi médecine traditionnelle du monde macha allah dégg ngeen témoignage yi ñu jot a wax yépp ci sëriñ bi kon dañuy wax ni macha allah kenn du ji Thierno Moule Sow soxna ant Euh, jërëjëf Mouhamadoul Moustapha on voit que l'information a passé euh, nit ñëpp ñu ngi takku ba dëgër day profité ci li nga xamante ne nii euh, moom mooy promotion bi ndax comme bu li nga xamante ne nii bu la nii koy olof di waxee ku yàlla tàcc boo fecciwul dootoo fecci ba mu ko ñu ne lu tax ñu ne yàlla amul tàcc kon bu àndeek yow rek foog nga profité wu loolu la nag askat bi xam ci li nga xamante ni am na muy promotion bi on voit que ñoom ñëpp a ngi ñëw di profité wu ndax ku xam nag biti réew ku fa nekk dafay metti nekkul sa réew rek stress raw ko kon da ngay soxla assurance te assurance bu mag bi nag mooy fii ak cuuraay yeeg vite fait yi ak jooni jooni yi lay yokk assurance nga war ko amee kër alaaj ceex na mu lay saw les personnes ont euh, def li nga xamante ni ils ont compris xam nañ fi nga xamante ni moom mooy moyen de thérapeutique bi fi nga xamante ni mooy remède bi moo tax ñëw nañu fi Moustapha jërëjëf soxna Anta kon sëriñ bi ñu lay ziaraat jox sa wàccuwaay di am mbégte toujours di ànd ak yow sur la TMS bi defe naa ni dégg nga témoignage yu am solo yi nga xam ni euh, ñi fi ñëw wax nañ ko euh, ñeneen jaar nañ fi ay ati ati at macha allah kon mu nekk kàddu yoo xam ne sëriñ bi am na solo. macha allah alhamdulilahi rabbil alamin auzu billahi min ashaytaani rajim wala xawla wala quwwata illa billah al azim gannaaw ba ñu sante suñu borom ñoo ngi julli ci yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di suñu yaakaaru tey ak ëllëg macha allah di am kontaante ak mbégte lool vraiment euh, macha allah Moustapha nuyu nañ la nuyu nañ Anta macha allah Kara Alseeni nuyu nañ aussi suñu taalibe bi macha allah nuyu nañ aussi gan ñi macha allah kàddu yi am na solo rafet na comme suñu taalibe bi nu mu ko waxee. Euh, fan yee macha allah t-shirt yi ñu defoon ci weeru koor gi mooy t-shirt yi bëri yooyu macha allah nga xamante ne suma taalibe yëpp laa ko yónnee woon ñu nekk bitim réew ñu nekk fii ñëpp ñu daal leen ci may moom ci lañ ko jox benn t-shirt <clears throat> defe naa ne t-shirt boobu noonu gis na ci njëriñ macha allah dégg nga seede boobu mu wax seede bu am solo ndax xam nga t-shirt yi dafa am baatin te dafa am barke macha allah xam nga du t-shirtu neen boo gisee nit ñi di ko jënd. Euh, macha allah dañ cee gis njëriñ gis nga fu mu nekk ni léegi léegi maa ngi wax Kara <clears throat> su ma wéev yi ñaari wéev yi dafa bloqué maanaam dafa plafonné quoi parce que instant bi ni waa bitim réew ñoo ngi commandé ñu bari sax ñoo ngi commandé t-shirt ñoo ngi commandé vite fait ngi commandé aussi volcan bi vite fait bi ñuy naan waa bitim réew ñoo ngi commandé ak waa fii moo tax sama ñaari euh, wéev yëpp nii nii nii nii nii dafa plafonné te xam nga wéev bi par dix million la maa ngi bëgg ubbiwaat beneen Wave sax ci beneen numéro bi muy 781 77 781 62 40 macha allah parce que ñaari moom dafa xaw a bloqué parce que envoyé ñooy bari parce que ba ñu déggee promotion bi am na ñu bëri ñu nekk États-Unis vraiment woo nañ ma nee na nañu leen bàyyil stop macha allah ñii nekk France aussi nañ leen bàyyil stop parce que dañoo gis njëriñ aussi xam nga samay garab yombul ndax garab bu baax la garab la bi nga xamante ne vraiment dafa efficace. moo tax euh, temps yi ma ko tëjee ne arrêté naa vente bi nit ñi dañu doon sonal dañ daan woote gauche droite bëgg affaire yi mais ba ñu ubbee fan yi macha allah ñi ñaa ngi envoyé bu baax ba nii nii nii nii nii nii vraiment su ma su ma yi yëpp dafa bloqué dafa plafonné macha allah li loolu laa doon ubbi léegi léegi nii pour beneen wéef bi parce que am na ku nekk États-Unis commandé na léegi léegi euh, commandé woon na vite fait bi ñuy sangu. mu commandé waat vite fait bi ñuy naan yónnee na ma léegi ni sept cent mille mais ñëwul parce que euh, dafa plafonné moo tax ma buggi ubbiwaat euh, beneen wéef macha allahu di sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, nit ñi dañu gis njëriñ ci produit yi te produit yi da leen di dimbali xam nga lu mel ni dëmm ak rab ak jinne daf ñoo sonal rawatina ñi nekk bitim réew macha allah bitim réew ak Sénégal dafa sori foofu tubaab yi garab la ñu xam ak comprimé mais macha allah tiset yi soo ko amee dina la jàppale bu baax a baax ci wàllu rab ak ay jinne cuuraay yi aussi boo ko amee dana la dimbali rawatina mu nekk vite fait bi ñuy sangu ak bi ñuy naan macha allah moo tax fan yi moom macha allah dañu may envoyé rek xam nga wéef moom dafa yombal lépp. da ngay toog fi nga toog téléphone macha allah su ko defee da ngay yónnee nit ki saa si ci xaalis bi mu jot ko ci saa si moo tax ñu bëri macha allah noonu la ñu noonu la ñuy def seen i commande kon nag vraiment sant yàlla bu baax a baax julli ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vraiment ñoom it di kontaan bu baax a baax ci ñoom parce que dañ leen dañ leen fi yabal ñoom it ñu def déplacement dérangement ñëw pour seen xam nga ñi nekk bitim réew vraiment ñun ñu fi nekk ñoo leen di mën a dimbali euh, bu ñu amee seen soxla foofu suñ la yabalee vraiment nga bàyyi sa yitte bàyyi sa lépp nga ñëw vraiment taxawu leen vraiment ba ñu jot ci li ñu bëgg macha allah. kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp aussi suñu taalibe bi vraiment moom it euh, nit ku baax la vraiment gis ngeen fan yee ñëwoon na fi vraiment def ay témoignage macha allah ba macha allah moo ngi place bi defe naa ne moo ngi ci euh, moom it moo ngi gis boppam saa yu mu fi ñëwee rek euh, bu ñu ko ñaanale rek bu demee day yokk macha allah. barki Demba Ndiaye moom ma wax euh, Alseni moom ma wax ne dafa bëgg tàmbali affaire place am bi macha allah te place bi nga xamante ne dafa jafe woon ci moom mais bu mu ñëwee fii ci ziar bi ñu defal ko ñaan mbir yi daf koo daal di yomb kon nag yal na yàlla yokk ko yal na yàlla aar ko fii moom duwaa jaa bi moo fi nekk kun fay kun ñi ñaa ngi gis seen bopp bu baax a baax vraiment di leen sant bu baax a baax defe naa ne ñii ñu nekk bitim réew ñoo leen yabal pour ñu ñëw jënd ay t moom macha allah suñu taalibe bi aussi cuuraay la bëgg comme ñi def ay commande fii macha allah kon nag ñu daal di leen jox mun nga ñëw Alseyni ñu daal di jox macha allah. Euh, Alseyni mooy ñëw noonu pour euh, euh, daal di leen di jox yi nga xam ni moom la ñu jënd muy cuuraay bi kara nga nga zoomeel ma fii ci ci côté bi ah. demandé ci man ni actuellement dafa bari sax nag euh, am na ñu nekk France def nañ euh, commande awa awa commandé na vite bi ñuy naan mm, ak vite fait euh, bi ñuy sangoo macha allah ak cuuraay bi am na tamit macha allah ki nekk Amérique moom mooy ki mo wax léegi commandé woon na vite fait bi ñuy bi ñuy bi ñuy sangu bi ñuy naan bi la aussi macha allah am na tamit ku nekk Italie macha allah commande dafa bari. am na ñu nekk ay France ak Italie même fii nii sax euh, am nañu commandé macha allah léegi xam naa ne du ñàkk léegi moo wut benn cak-cak xamante ne képp ku commandé rek macha allah da la ko dañ la ko yóbbul barki Dembo Ndiaye aussi euh, konaate dem na DHL am nañu ñu bëri ñu commandé woon ay produits yóbbul na leen ci DHL bi macha allah am nañu jot am na ñi nga xamante ne mu ngi ci yoon bi pour ñu jot ci macha allah. loolu leer na nañ kon ba léegi yéen ñu suivre sur la TMS bi cuuraay bëri na lool waaye cuuraay bi dafa ute ndax kii sama composement la maanaam sama baatin laa ko composé mun nga dem fu ne ñu ne la cuuraay dem cuuraay seytaane nangam nangam mais bii bokku ci ndax bi xam-xam lañ ko composé ak baatin ba pare def ci suñuy mbir yi nga xamante ne macha allah luy dem ak jinn ak rab ñemewuñ ko. cuuraay bi defe naa ne wane na ay kiraama cuuraay bi defe naa ne macha allah saa su ne nit ñi ñu ngi ci gis seen njëriñ bu baax a baax macha allah même suñ taalibee bu nekk Amérique Penda jaram mu ne ma dafa bëgg ñu defal ko commande ñu dencal ko balaa affaire yi di jeex euh, ak suñu benn taalibe bu nekk euh, France aussi euh, Aïssatou Ba macha allah instant bi ni gars yi xam nañ produit bi macha allah waaw mun na ñëw mën nga man nga man nga jege si macha allah. Mm, macha allah. ndeysaan macha allah. ñëwee rek euh, day indi addiya parce que moo ngi gis boppam su demee day day yokk maanaam lu mu fi def rek nu ko barki démb ajaratu xadim bu waxee nee na moom saa yoo fi ñëwee lu mu fi joxe su demee balaa quinze jours affaire bi day fulo taalibe noonu la maanaam lu ñu fi def rek. Euh, day delluwaat maanaam baltengs la daal maanaam macha allah di gis nga bagages yi léegi yu jóge yu jógee Allemagne gis nga bagaase yi fu ne lay jógee ndax ñoo ngi gis njariñ waaw moo tax taalibe yi maanaam lu ne la ñu may indil macha allah waaw. nga jege si ñu bàyyi la nga commenté Anta Euh, jërëjëf Mouhamadou mustafa comme ni nga ko waxee ah soxna si dafa mel euh, dafa da indiwaale ay addiya. dama indiwaale ay addiya. nan la. bii pour kan la. mu ne bii madame lii madame Sow moo ko. ah pour madame Sow pour pour madame la. bii soxna ummi. bii suñu yaay ajaratu Mariama Kamara. Mm-hmm. ah Moustapha <coughs> lii nag miin nañ ko ci kër gi à chaque instant rekk dangay gis taalibe yi ku ci nekk rekk loo mën yaa ngi koy yaa ngi koy def eh, ndax ki démb fii eh, man maa ko interrogé mu may wax place bi nam ko jafee woon Euh, mu doon ñaan tamit pour lépp yembal ko tey lépp daal dina koy yemb ba mu nax a commencé waat liggéeyam loolu nag ku la defal lu mel noonu dama ko wax dama ko waxaat ku seral sa xol loo ko jox xeeb ko Moustapha. nga loolu moom dëgg la ku seddal sa xol moom. Mm-hmm. loo ko defal rek nga ko xeeb macha allah. Mm-hmm. te ñaan nañ yàlla affaire yi yokk bu baax ba nga xamante ne dañuy gaari ay conteneur mm-hmm. di ko defal lu nekk macha allah. jërëjëf kon defe naa ni loolu am na am na am na solo ñu ko doon commenté euh, kon defe naa ni euh, yéen ñu suivre sur la TMS bi gis ngeen euh, addiya bi nga xam ni moom la indi sëriñ bi cuuraay bi nag sëriñ bi jot na ko <clears throat> expliqué moom la koy jox noonu macha allah. Marème Sall Marème Sall gis nga ko bu muy ñëw fii cinquante mille la indi woon pour bëgguma ko jox ma ne ko demal nga liggéey ci. gis nga ko loolu jur na ba jënd na palmaan bu cent cinquante mi indil ma jëndal na ma lu ne barki de Njaay fii la indi ay cin mbana cin moom it noonu kazalika noonu mbir yi day gën a yokk rek ndax sëriñ bi vraiment nammul dara waaye taalibe yi dañuy sàkku barke bi sàkku ñaan ci sëriñ bi sàkku yokkute ndax kenn ku ne da ngaa bëgg a yokk nag ah waaw koo gis ci àdduna dafa bëgg a kon nag sëriñ bi di joxe addiya di ñëw vraiment di di jàpp ci liggéey sëriñ bi vraiment loolu da lay jëmale kanam kon nag ñoo ngi koy ñaanal place bi yàlla na gën a yokk clients yi di gën a ñëw mbir mi gën a ubbeeku yàlla aar ko sàmm ko ci barke yonte yàlla Muhammad salaa salaam gis ngeen indil na madame Sow laaren vraiment indil na ko brode indil na ko macha allah ay ay ay courte carte ay darab indil na aussi ajaratu Mariama Kamara ak soxna ummi macha allah ñoom ñaar kenn ku ne ay vaccin yi riis euh, vraiment macha allah kontaan rek la ñuy am di ko ñaanal bu baax yokk ba yëg ko rek ndax moom fii moom macha allah kër gi mooy joxe yokk ñàkk a jëriñu macha allah te taalibe yaa ngi seen bopp gis nga bagage yi fu ne lay jóge ci àdduna bi xam nga nii ñi du ñu fi indi ci hasard ndax dafa am lu ñu fi gis te lu ñu fi dugal day yokk kon nag yàlla na nga yokk ba yëg ko allah jërëjëf moom dafa buggaale ay photo waaw. allah xam loolu leer na. yii hmm? defe naa ne macha allah parfois jinne jóge def ñaadam ñaadam jóg dem pour engager nit ki ñëw gis photo bi rek arrière parce que yàlla lu muy def def na ko ba pare macha allah defe naa ne yii moom dégg ngeen chaque jour ñu ñuy def ay témoignage Euh, macha allah am na ñi nga xamante ne bu ñu solee t-shirt yi day am lu ñëw nar leen ataake day am lu génn ci photo yi ci t-shirt bi yooyu yëpp defe naa ne témoignage yi nit ñi gis nañ ko dégg nañ ko kon yi njëriñ yàlla moo mooñaale lu muy mooñaale ci Thierno Moule Sow ci jëmmam ci ay photom ci ay t-shirtam def ci barke ñi ñaa ngi gis seen bopp bu baax a baax kon nag yàlla yàlla barkeel macha allah waaw. waaw noonu. ni ma nga jóge ba Tëngéej macha allah ñëwoon indil sëriñ bi addiya doon jëndaale également ci cuuraay bi ak photo bi euh, moom lañ ko doon jox noonu ngeen dégg kàddu yi am solo yi nga xam ni également kilifa gi di sëriñ bi pësal na ko euh, jëm ci soxna si nga xam ni euh, mi ngi bokk ci taalibe mule mule yi macha allah mhm. kon soxna si man nga daal di jege si yow ah mooy sànq mi ngi doon wax ni eh, dañ ko fee yebal eh, te ki ko yebal mi ngi jóge ba Europe ah ah ko yebal mi ngi jóge ba Europe. Hmm, eh, mhm. kon gis nga t-shirt bi moom la ñëw moom la ñëw ut si noonu ah, moom la ko sëriñ bi war a jox xam ngeen ni t-shirt yi nag moom dafa am. dafa am baatin euh, bu baax a baax euh, moo tax euh, defe naa ni bi ñu ko arrêté ak léegi avant ñu koy arrêté li ñuy wax ci tubaab dañ ko daan jëndee comme ay petit pain comme ay ay petit pain gars yi nit ñi dañ ko doon dañ ko doon dañ ko doon ramassé bu baax a baax dañ ko doon jënd comme ay petit pain donc xam nga ni t-shirt yi moom waxuma la sax li ci ne waaye saa bu rek boo ko solee euh, daf lay aar ci yu bëree bëri protéger la ci lu bëree baree baree bëri ah dolli ci nag foo jublu sa mbir euh, day leer naññ naññ naññ <coughs> waaw waaw waaw kon defe naa ni loolu lu am solo la soxna euh, jërëjëf Moustapha ñuy fàttali nag t-shirt yi Alaaji Thierno Moule Sow moo ngi koy weccee yow mi nekk bitim réew Euh, cent mille francs CFA yow mi nekk biir réew aussi nga soxla cuuxaay bi ma leen yi fàttali mu ngi koy wéccee euh, deux cent mille francs CFA euh, ñu gis nag ñëpp nag ñu ngi ñëw lim bi mu ngi gën di takku mm-hmm. waaye nag li tax ñu koy gën di takku assurance bi la ndax sëriñ bi mu ngi xam ne ni photo yi boo ko defee dafay dafay lay sécuriser ba jinne bu duggee rek dafay ëlbatiku loolu nag jar na daw ba dee ut ko fi nga xamante ni fii mooy assurance bu mag bi bi mooy euh, assurance bu bu mag bi defe naa ni kàddu yooyu am na solo kon sëriñ bi xanaa ñu bàyyi la nga tëj rek macha allah bàyyi sëriñ bi macha allah Moustapha xam nga am na ñu bëri aussi ñu nekk bitim réew comme ni ma ko waxee ndaysaan maanaam du ñu am ñu ñu mën a yónni xam nga ñi sa am nañ ñu ñu yónni léegi ñooñu dañuy joxlante ak man direct ñooñu ñoo may envoyé ay wave su ko defee bu ñu ma envoyé ay wéef macha allahu ma ma ma préparé bu dee vite fait bi ñuy naan bi ma préparé bu dee bu ñuy sangu bi ñu préparé ko bu dee cuuraay bi ak yëpp ñu préparé ko euh, macha allah mooy yónni ndaw yi fi nekk ku mel ne Alseeni wala Konaate su ko defee ñu daal di may dem yóbbul leen quoi macha allah ñooñu tamit euh, amul benn problème parce que da ngay nekk bitim réew parfois sa mbokk du ñu nekk fii quoi sa mbokk du ñu fi nekk léegi da nga koy bëgg. mais da ngay da ngay da am jaaxle léegi loolu amul problème incha allahu su ñu yónnee direct rek euh, ñun bu ñu ko defaree dañuy jël seen adresse yëpp bind ko bu ko defee ma jox sama ndaw yi ñu bu dee DHL ñu yóbbu leen ko DHL bu dee aussi dañ leen ko yóbbul ci GP ñu yóbbu leen ko ci GP fan yi loolu la quoi macha allah parce que ñi ñu bëri ñu commandé nañ ñi nga xamante ne amuñu fi ay mbokk mm, seen mbokk yi dañu sori fii wala ñi bëgg nañ jënd bëgguñu seen mbokk yi yëg ko. bëgguñu ñu ñu yëgal leen yooyu yëpp tamit macha allah bu ko defee noonu lañ leen di defal ñenn ñi tamit bëgg nañ jënd te fekk macha allah euh, jënd fekk bëgguñu nit ñu yegg ko ñoo ñu dañ leen di defal comme GP noonu macha allah vraiment ñoo ngi sant bu baax di gërëm ndax t-shirt yi dafa am barke t-shirt yi dafa am ñaan ndax t-shirt yi macha allah tam nga t-shirt bu jaar cent mille francs <laughs> boobu lu t-shirtu waaya waaya ni ko Matar di waxee dafa am ñaan. dafa am baatin ndax xam ngeen ne jinne ak dëmm ak rab macha allahu li ko mën a téye du lu yomb waaw lii nag moom dafa am solo boo ko yoree ci ngay xam njëriñ bi ndeysaan da ngay gis ñenn ñi sax dañu jëndoon t-shirt yi t-shirt bi day dem ba jeex sax xola du tee dañ koy yor parce que dañ ma ne waa lii ñu ne sëriñ bi yii kii du ma tàggoo ak moom ñenn ñi dañ koy bëgg di sol maanaam chaque jour chaque minute ndax dañuy gis njëriñ ñenee ñi bu ñu solul t-shirt bi du ñu am jàmm du ñu mën a nelaw du ñu mën a génn du ñu mën a liggéey ndax t bi bu ñu ko solee rek dañuy xàppi dañuy fri kon xam nga ne loolu barke la loolu suñu borom moo ma ko defal macha allah ñi ñaa ngi ci gis seen bopp bu baax a baax moo tax ba ñu arrêté woon jaay bi jamono yooyu am na ñu sonnoon trop nag waaw am na ñu sonnoon trop mais ba taalibe yi ñaanee ak jëwriñ yi vraiment ñu si lañ ubbi vente bi macha allah ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal jàmm macha allah.